la première fois ci élection ci locale ñu am cent neuf mille voix ci département Mbacké loolu mus am kon nag bu amee yéen ñi nga xamante yéen a tax mu am ñu ngi leen di jëfal di leen sant di leen gërëm si taxawaay boobu noonu yéen population bu Touba yéen waa département bu Mbacké ndax nit boo ko defee loo xam mënul ko boppam war na la sant waaye aussi war na tiit ndax ku ne xam na ni. fa ngeen ñu yóbbu muy pénc ndaw réew mi man mii di wax ak yéen nekkoon naa ko am na lu fa nekk loo xam ni ku fa nekkul mënoo koo xam kon ñi nga xamante ñoom la ñuy àndandoon pour dem fa yoon def na ñu taxaw waxtaan ak ñoom ndax ku la jiit si dara moo la fa ëpp expérience ñu xamal leen dafa nekk si ay coono xamal leen aussi yan bi leen yan ni mu diisee ak yaakaar bi nga xamante population bu Touba ak Mbacké am nañ ko si loolu moo waral mani député yi nga xamantaan tànn nañ leen muy Cheikh Thioro Mbacké di soxna Assou Mbacké Abdou Borom Dër bi di Cheikh Abdou Mbacké Ndaw di Fatma Mbodj danañ daje ñun ñii juróomi député yi xam ñoo war a toggal pencu ndaw réew mi Touba ak Mbacké ñu def pacte boo xam ni danañu wax ni ñun duñu trahir peuple sénégalais rawatina département Mbacké parce que loolu nag dañu il ñu xam loolu parce que assemblée nationale lu nekk nga fa kon trahison boobu nga xamante ne am na ay nit yoo xam ne defal na ko suñu liste tey jii trahison boobu la ñuy bañ am ci député yi gars yi nag fii nga xam mooy département Mbacké rawatina Touba te dëkk bi ñun ñii nga xam ay gor nga xam bi nekk Assemblée nationale lu nekk dégg na ko lu nekk gis nañ ko ñu nekk fu nekkoon si opposition bi ren jii nga xamante ni tey la population bi gën a soxla ku leen toogal tey la population gën a soxla ku leen taxaw tey a soxla ku leen waxal kon bu ñu am benn complexe pour wane ni ñun Touba la jógee wala askan la ñuy taxawal ndax foofu boo fa nekkee boo amee complexe li nga war a wax doo ko wax boo gëmul sax askan li nga war a wax boo ko wax boo bàyyee xel ñi ngay jàkkaarlool la nga war a wax doo ko wax kon yéen ñi nga xamante ni yéen lan fal ñu bees ñu war na àndandoo nekk juróomi député doogal si Ahmad Bamba assemblée nationale doogal département Mbacké assemblée nationale nañu fexe ba suñu wax ak suñu jëf yëpp mu joo xamante ni intérêt peuple bi lay doon intérêt Touba lay doon intérêt Mbàkke lay doon intérêt commune lay doon ndax que lii am tey jii yaakaar naa amul ci Sénégal ndax Touba tey boo bi jox nañu cent neuf mille yoo xamante ni li ñuy topp trois cent cinquante huit cent neuf mille trois cent cinquante huit am nañu ko loolu nag yaakaar naa ni mus am si département loolu ko ñu ko defal war nga gërëm ña nga xam loo nga def ko muy population bi comme ni ñu ko waxee woon boo jëlee département Mbacké rawee nañ Benno Bokk Yaakaar soixante-douze mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit maanaam dañ leen di triple ñoom leen am dañ koo triplé kon jàpp naa ni dañ leen di humilier comme ni ñu ko waxee woon campagne humiliation leen def ci département bi département yi am Sénégal yëpp di Touba am benn département amu ko ci am nañ juróomi député si département bi am nañu aussi ñaari député yoo xam ne Touba moo ko jox liste nationale loolu tamit pour que waa Touba ñu xam ni fal nañu ñaari député si la liste nationale si coalition wàllu kon ñoom ñoo fa nekk nekk fa ay nañu sant population bi xam ni Touba ñoom ñoo tax ñoom ñu nekk ay député si la liste nationale boobu muy liste nationale bu wàllu boo jëlee rek Touba Mosquée nga xamante ni 609 bureau de vote la ñoom am nañ fi écart 70 020 moom la ñu rawee la commune Touba li nga xam mooy Yaakaar. commune Mbacke ñu roy fa 7941 va kon loolu mooy li nga xam ni am na écart boo xam ne kenn mënu ko dab kenn mënu ko dab kenn mënu ko nattable loolu moo tax tappale yi nga xam ne ñu ko doon jéem a def ci département yenn yi di ko def diaspora bi loolu moo tax mënuñu ko def fii nga xamante ni mooy Touba mënuñu ko def fii nga xam mooy Mbacke ndax amul benn bureau de vote boo xam ni fii may wax ak yow muy Touba. muy Mbàkke boo xamante ne Benno ko Yaakaar gañe na ko kon loolu moo lay wane la Touba ak Mbàkke dañoo rekk démb tey doog a ñëw malgré que na nañ ay milliards yu milliards yu milliards ñëpp ñu bari ñu baree bari ñu nekkoon suñu ñu jënd leen lu baree bari ñu def ko fi waaye téewul population bi am détermination wax ni ñoom kenn du leen wax ni kenn mënu a ger wax ni ñoom Seex Ahmadu Bamba la ñu gëm moom la ñu wóolu loolu moo waral ñu taxaw taxawaay boobu nga xamante ni taxaw nañu ko kon boo xoolee au niveau département Mbacké am nañu li nga xamante ni mooy soixante-dix-sept virgule quatre-vingt-trois pour cent soixante-dix-sept virgule quatre-vingt-trois pour cent moom la la wàllu am coalition intercoalition wàllu ak Yewwi li nga xamante ni mooy li am si commune bu Touba 77 virgule 83 pour cent Benno Bokk Yaakaar am 13 virgule 40 pour cent kon da lay wan ni lii maa ngi koy rappelé sama benn xarit naan ko lii mooy wan ni mooy ñu watoon bulletin balaay 77 xam ne amoon nan ko kon jàpp naa ni u Touba rek am nañu 77 virgule 83 pour cent Macky Sall Touba 13 virgule 40 pour la fa am boo jëlee département bi gañe nañ ko 68 virgule 73 pour cent li nga xamante ni mooy Macky Sall am 22 virgule 85 pour cent loolu mooy li nga xamante ni moo am ci résultat ñu rafetlu ko lool sant lool population bi di wax rek loo xam ni dañ koy bàyyi xel ndax ku ne xam na ni Macky Sall ak ñi ma àndal dañoo tiit ndax fii may wax a yow mooy coalition Wallu ak Yewwi am na 83 députés léegi nii maa ngi confirmé ak gars yi ñun coalition bi ñu ñoo am maturité mais tey ci suba bi 11h jotee ba tegal fanweeri minute ñoom bi ñu xamee ne ñàkk na département yi ñu ngi wër diaspora bi am na ci benn diaspora boo xamante ni ci conseil Milan la ñu ngi doon teg waat li nga xam mooy bulletin yi ngir jéem a sensé ngir que a am ñoom ci la liste nationale. bi ma yëgi information yooyu woo naa ni nga xam mooy la ñaari coordonnateurs yi nga xam mooy mandataires yi muy Déthié Fall ak Lamine Thiam wax leen ni Macky Sall diaspora bi day jéem a sensé woot bi ngir que ñu ñu wàññi taux bi nga xam moom leen rayo si bi ngir ñoom ñu mën a am lu bari si liste nationale bi ngir ñu mën na faa ëppale waaye loolu bi leen interpellé tamit gëm naa ni loolu liggéey ba la si war liggéey liggéey nañ ko mais ñi nga xam lañ daal hold-up électoral duñu ko nangu yéen waa Touba yéen Mbacké yéen population département bi na ngeen ànd vigilance xam ni ñun am nañu ma biñ doon sàkk li ci noot teb nag mooy li nga ñu waroon def defal ngeen ñu ko ñun ñoo si des pour ñu delloo la kal pour ñu mat suñu place mate suñu place ba nga xamante ni kenn du gis waa Touba ñii di xeet Touba ci ci Assemblée nationale wala nga yab Touba ci Assemblée nationale ngir taxawaay ak carte population bi yéen sama collègue député yi honorable député Cheikh Thioro Mbacké honorable député Fatma Mbodj honorable député Soxna Astou Mbacké honorable député Abdou Mbacké Ndaw na ngeen xam ni ñii li ñu warloo ak ñoom def nañu ko kon yéen yéen a si des ngeen taxaw fii ngeen wax si kanam population bi jël seeni engagement wax ni da ngeen dossier mukk la population Touba Mbacké du ngeen war aussi population Touba ak Mbacké te lépp lu ñuy siim su yéen da ngeen ko matalee ngir askan wi lépp loo xam mooy seen i jafe-jafe ngeen ko wax ba pare di wàcc si ñoom ci terrain bi di waxtaan ak ñoom lépp luy seen saafara li ngeen si mën ngeen di ko si def bañ a tëj seen téléphone loolu mooy li nga xamante ni mooy tax ëllëg boo soxlaa nit ñi nga am ko man mii di wax ak yow am na lu ma ci xam ndax wot bii xam naa ni am na ñaari façon wot yu am ndax lii may wax ak yow Touba meroon na mer goo xamante bi ma tëjee si kaso bi ñoom ñëpp maase woon nañ ni dañu sanctionné massivement Macky Sall ngir maanaam tëj gi mu tëj ci kaso bi résultat bi am na lu mu si wane ndax résultat yi daawul nii kon population bu Touba ak Mbacké na ngeen xam ni lépp lu ma leen defaloon rek war naa ko mën a yokk lépp lu ma joxoon dinaa ko yokk ndax man góor laa doon te góor laay doon du ma jaam te sëñ Baara Doli mii suñu waaju am na lu ñu jàngal képp ku mel ne neen yaa mel ne neen waaye man Cheikh Abdou Bara Doli góor laay doon lépp lu ngeen ma defal dinaa leen fay dinaa leen jox sama bopp dinaa leen jox sama lépp ak sama jot sama temps xam ni disponible na à tout moment bu ñu ma soxlaa fu ma soxlaa dinaa wàcc si yéen lu ngeen ma defloo dinaa leen ko defal ngir intérêt Touba ngir intérêt Seex Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul loolu maa jël ma man Seex Abdou Mbacke Bara Dolly noonu laay taxawee Assemblée nationale ndax taxawaay boobu noonu moo tax tey jii bi ma soxlaa bin ma jiitalee ngeen yëkkati ma jàppale ma di nga xamante ni mooy jàppale ma yëkkati ma taxawu ma siggil ma ci kanamu samay nawle ndax tey jii résultat bi am amul fenn lool nag am na lu ko waral dégg na maanaam di ngeen ñu déglu su nopp dégg na nañu ko te doon ko jëf incha allah benn bi soog ma leen di wax ni lii nga xamante ni mooy di am fan yii yëpp dégg ñu ko am na suñu benn collègue woon boo xam ne ngi woon ci liste bi nga xam ne liste wàllu barki démb altine muy démb altine Macky Sall yónnee na ko oto bu bees bullu oto bees bullu ngir contre bu mu contre su liste te moom te mu ngi woon si biir liste bi kooku jëruñu du turam même bu fekkente ni liste bi àgg na si moom du nekk di pré du cessé parce que dafa démissionné woon loolu maa leen ko wax ndax kenn du kenn du ñu jaay te ci li nga xam mooy campagne bi ngir xaalis ñu def élection bu pare te su bëgg Macky Sall yéen jënd oto bees bullu yónnee la ko ñooy ñetti boo nekkee député da ngay jaay député boobu moo tax ñun jël na suñu matuwaay waxtaan nañ si ak suñu avocat waxtaan nañ si ak direction coalition bi mooy même bu u nekk député du siège assemblée nationale loolu mooy li wér kooku nag xam na boppam ñun xam nañu ko jur ñu jaas turam ma ni kenn ku nekk la nga def yaay jël say responsable am na ñaar kenn ki moo nekkoon numéro 13 kenn ki moo nekkoon numéro 15 gis naa si Axma bu nekkee assemblée nationale dinaa bàyyi assemblée ndax ñoom nekk at nekk ay député ndax borom kajam borom borom fajam kanam borom moo ñun mu ñu nangu nga saaga Ablaye Wade saaga Karim Wade saaga Ousmane Sonko traité lu nekk say frère tey ji nga wote contre ñu ñu naan liste bi da nga jàll doo jàll même boo jàllee doo seese ndax am na loo xam ne boo ko lekkee moo moo ko te góor sa nekk xam nga sa bopp loolu mooy li am kooku may wax nag Macky Sall joxoon ko xaalis si campagne bi bi ñu campagne ba pare Macky Sall jox na ko oto bu bees bull mu yóbbu ko sama baay na ko ñaana ma si oto Macky Sall ma ko jox kooku xam na boppam ñun soxla wu ñuy oto oto boo xamante ni bi ngay war ci jar askan la ko jëlee jox la ko kooku yaakaar naa boo ko waree gàcce lay doon ñun oto yi ñoo ko jëlee suñu bopp ñu oto Macky Sall soxla wu ñu xaalis su Macky Sall ñu soxla mooy yéen askan Touba bi li ñu ñu defal mun ñu leen fay ci ñu soxla moo tax naa leen woo huit mais ba ñu demee ba ca ngoon ñoom peuple bi choisir nañu loolu nag tax na ñoo ngi féliciter toute la population sénégalaise waaye particulièrement nag département Mbacké bi nga xam ne fi la ñu investiroon te ñoom lañ fas yéenee teewal à l'Assemblée nationale ñoo leen di féliciter muy peuple bu mature ndax gis nañ campagne bi ni mu demee am na ñoo xam ne gis nañ nu nu waaye dañ koy ñaaw ndax arrogance lañu campagne ndax dëkk bi na mu méttee ñëpp yëg ko ñu toog ba campagne bi des ay fan ñu mel ni ñuy mbéj nit ñi di leen jënd di leen ger waaye won ngeen leen ne leen kenn du leen jënd kenn du leen ger ay gor ngeen kon peuple du département de Mbacké na leen jukkal bu rëy ñun nag dañu engagé wu en politique yor suñu leader ndax intercoalition lañ demee Wallu ak Yewwi Askan Wi ñu investir ñu la bannière de Yewwi Askan bokk ci parti Pastef muy man ak sëñ Cheikh Thioro bi nga xam ne mooy coordonnateur Pastef Touba mu jël kàddoom di wax ci moom kon population bi sas ngeen ñu waaye ndokk ba nga xam ne ba ñu engagement politique nekkoon ay observateur ma jekki-jekki ne damay dugg nekk actrice ci politique dootuma toog di seetaan wala may def utiliser sama carte mais il temps pour ñëpp dugal ci seen loxo ndax kenn ku ne war nga joxe sa gisin ci réew mi dugal ci sa loxo changement bi ñu bëgg muy un changement positif un Sénégal pour tous li ñëpp bokk ñëpp jot ko jot nañu ci liggéey ci kon peuple de Mbacké particulièrement commune de Touba sas ngeen ñu waaye na xam ne dañuy doon des députés du peuple député peuple bi la war a teewal à l'Assemblée nationale ñu nag ci la ñu gisee ay député yoo xam ne dañu naan suñuy leader fi teg waaye ñun ay nit ñu mature lañu ay nit lañ ñoo xamante ne nii li ñu engagé wu seetoon nañu ko leader bi la mu ànd ak moom xam nañu ko projet ak lu développé Sénégal moo tax ñu engagé wu auprès de nos te loolu ne man Fatma Mbodj ma engagé wu auprès du leader le président Ousmane Sonko. ànd naa conscience boo xam ne la ma yóbbu assemblée nationale c' est le peuple sénégalais c' département de Mbacké waaye nekkul ne rek damay gumba tax lu lu Ousmane Sonko bëgg ëllëg ma signé ko déedéet engagé wu ma ci loolu. donc je maa ngi engagé wu solennellement ak sama mbokk yi ma fi toogal ñëpp muy sëñ Cheikh Abdou nga xam ne ñu koy jaaraamaal jaajëfal ko ndax moo nekkoon suñu tête de liste lu ko war def na ko di soxnaa su Mbacké bi nga xam ne la suñu kilifa sëñ Cheikh Thioro Mbacke suñu coordonnateur taxawaayam rafet lool Abdou Mbacke Ndaw bokk ci coalition Yewwi Askan Wi moom tamit taxawaayam rafetlu nañu ko nun de ay député du peuple lañ fas yéene doon te ñooñu doon dugg ak la quatorzième législature mais quatorzième boobu incha allah rabbi engagé nañu auprès du peuple fas yéene leen faa teewal. bëgg wax ci kanamu borom. que engagement bi ñu amoon démb depuis 2002 ci département de Mbacké ak Sénégal sans pour autant ñu yor benn nombre électif engagement boobu bu ñu demee bay dénk ñu ay nombre war a représenter le peuple le département au niveau de l'Assemblée nationale loolu dafay gën a dëgëral suñu engagement te ñu ngi jël engagement devant le peuple sénégalais le département de Mbacké te yaakaar yi xamante ni population am na ko ci man sama jëm sama bopp laa xam te ñi ma àndal ay góor samay nawle la te jàpp naa ne nekk moo ne ci jël nañu engagement servir loyalement le peuple sénégalais en particulier département de ba lépp loo xamante ni soxla nañu danañ ci teg suñu kéemtalaay kattan ci wax ak ci jëm. pour que li nga xamante ni askan wi yaakaar na ko ñun ba jiital ñun ñu doon ko jëfee. Cheikh Abdou Bara Dolly honorable député Abdou Bara Dolly li muy wax moom la engagé bi sama kilifa ci politique ba may dégloo ay décision benn kilifa naa am ci politique muy président Ousmane Sonko loolu na leer nañ war ko ko leen ko war ko ko leen ko defee war ko ko leen ko defee pour ñu laa jël ko ko fas yéene waa nekk di diggante kenn diggante boobu Sénégal laa bëgg nekk diggante département ba may xamal Sénégal yëpp di xamal waa département Mbacké yëpp ne lii ñu def ñun gis nañ ko bu baax a baax wote nañu plus de cent quatre-vingt-dix mille wote nañu plus de quatre-vingt-onze mille voix loolu buñ ko gis war nañ góorgóorlu xam ne département bi bëri na ay manquement li nga xamante ne état bi ñu ko fay def ci ay réalisation te du ko def na mu ko war a defee li nga xamante ne état bi ñu ko fiy diwee du ko def loolu moo war a nekk suñu période ñu ñu kon maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp gis naa ñu sonn di rendre hommage suñu benn frère Abdou Sida moom mi nga xam ne amul wàllu campagne bi ñu ko noonu danañ ko waxal te dëgg ci yomb ñëwaat ci biir campagne bi teg na ko muy nag sëñ Lo Zer Seck sëñ Moustapha Diouf Lambaye te loolu lépp du ko dara wóor ñu woon lu jël jël ñu xañ victoire yàlla na victoire ni ñu nekk woon benn ba am victoire bi nekk woon benn. dañ bàyyi suñu sonn fii kenn góor leen ko ne kenn ay góor leen nañ bàyyi section bi kenn gouverneur ko ne kenn ñëpp ay góor